ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni que saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Mansour Mboup Mansour Mboup nag moo nekk njiitu mouvement di jeunesse au pouvoir ñu daal di fas yéene waxtaane lépp lu soxal actualité euh, sociale ak tamit kuréel gi li nga xamante ni jiite na ko moo ko tax a jóg exactement euh, Mansour ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. asalaamaaleykum euh, soxna Koumba euh, ñu ngi kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal ak confiance également bi ngeen ci le mouvement indépendant jeunesse au pouvoir ci sama tur ma leen di. tur ak boobu mu wóolu ba jiital ma suñu taxawaay jëm ci lépp lu jëm ci jàmm ak naataange réew ak askanu Sénégal. bi ngeen di fondé euh, kuréel gi exactement lan moo la si poussé euh, Mansour ba nga te euh, indi li nga xamante ni mooy mouvement jeunesse au pouvoir en tout cas bu ñu ko déggee jël nga ndaw yi jiital ci kanam exactement lan moo la poussé si si si turu mouvement boobu. boo déggee ñu wax jeunesse au pouvoir li ko waral mooy askan wu ci kaw àdduna yàlla ñaari jumtukaay la ko jox pour mu tabax réewam. réewam pour mu mën itam jagal dundam jeunesse mooy kattan mooy bi nga xam ne mooy njëkk bi ci topp mooy xam-xam boo boolee xam-xam doole réew mu ñu defar ak lépp lu ñu tabax ci kaw suuf xam-xam ak kattan sunu mag ñu baax ci nekkoon muy les résistants ñoom Lat Joor ñoom Baba Diakhou ñoom Samori Touré ñoom Thierno Souleymane Baal ñoom Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom sunu ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Sidi Hadji Malick euh, ñoom bi ñuy taxaw ci seen ndaw lañu taxaw taxawu réew mi ba mu mi mucc ñu jël ko jébbal ko sunuy bàyyi ba tey mu mujj sunuy loxo taxawaay boobu mag ñi taxawoon foofu lañ teg sunu tànk ba muccal réew mi ci loxo politiciens yi nga xam ne ñoo ko depuis soixante ans semer la corruption le désespoir ba ndaw mi di jël gaal di dem Europe di dem Amérique te réew yooyu liñ ko tabaxee ak ñi ko tabax fii leen jógee ci Afrique waaw yàlla nag mënuñu may li ñu may lépp may ñu or may ñu suuf may ñu jant may ñu ay ressources minières may ñu macha allah ay nit ñu xereñ te fii xam-xam ñu war a toog ci or di tàllal loxo ak di wër àdduna bi di lépp ñu ñuy dimbali di ñu yërëm ñu ne ñun duñu xaar dañuy delloo yaakaar ci réew mi taxawu suñu ànd booloo nekk benn tabax Sénégal ba kenn dootul bëggati dem amee gendarmerie kenn dootul bëgg ci dem Europe ñu tabax réew mi lépp lu ñu bëgg yàlla def na ko fi li ñu jëlal jox ay doxandéem mm. ñu koy jël lu meññ ci réew mi ñu yóbbu seeni réew ñu teel ko suñu bopp defar réew mi fexe ba sénégalais bu ne boo bëggee foo dëkk nga mën ko am soo bëggee jàngi nga jàngi soo bëggee faju nga faju sa dund neex ñu jël Sénégal ak Afrique def ko mu nekk àjjana ci kaw suuf mm. tubaab yi ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu xel ëpp ñu ñu koom-koom ñu ànd nekk benn bàyyi xeex bi bàyyi yëfi caaxaan bàyyi naxaate bi bàyyi gerbi bi jël Sénégal tabax ko ngir suñuy doom voilà li ngay wax noonu voilà li ngay wax noonu Mansour euh, Mboup euh, suñu ko déggee dafay xaw a niroo ak li nga xamante ni euh, moom la ñuy wax ci plan Sénégal émergent bi nga xamante ni njiitu réewu Sénégal moom la tëral pour suqali réew mi ci jafe yi nga xamante ni moom la nekk yow sa gis-gis ci li nga xamante ni mooy plan Sénégal émergent bi nga xamante ni moom la régime actuel bi daal di teg waaw soxna si je crois que ñun ñëpp biir Sénégal dund nekkuñu ci benn réew euh, man contre ma def ñun aussi yàlla daf ñu bindee noo xam ni dañu nekk kuréel boo xam ni lépp lu ñu ŋàññi mbaa ñu ko dañuy jël lu ko gën teg ci wet gi yow ci sa bopp umpule wu mbir le président Macky Sall a été le ministre de l'intérieur maanaam kaaraange réew mi ci loxoom mës na ci nekk bi mu nekkee président ci la insécurité bi gën a yokk doo toog bés buñ la ne rey nañ nit léegi sax ñi doon def li ñu doon def guddi léegi bëccëgu dara kàmb la ñuy def li def agression bi yokk euh, vice yi gën a bari corruption bi gën a yokk gis nga scandale yi ñuy wax di di dal yenn ministres yenn yi sax léegi ñuy tudd ñi ko gën a jege ci ak ci famille mu jël lépp comme ni ko waxee teg ci loxoom ba du mujj fenn Mm-hmm. donc plan émergent boobu man daf may xaw a ndax lu lu lu tax. Mm-hmm. kenn du ko defar ci par parlo. Mm-hmm. kenn du ko def ci guerre. kenn du ko tabax ci di naxte réew sàkku xam-xam ak liggéey moo tax ñu ne jeunesse au pouvoir. bu ñu boolee ndaw ak kattan bu ñu ko boole dinañ mën a taw te ñu bàyyi naxaate ñu lu ne ñu dégg ko askan wi bu ñu falo nekkal ci seen bopp seen njaboot ak seen ay jegeñaale beddi askan wi gën jëloon teg leen ci bopp réew ngir ñu tabax ko mhm. Sénégal réew bu ndaw la mhm. du France du Amérique du Chine. Mhm. tabax ko yomb na nañu bàyyi caaxaan yi nous avons quatorze régions yow journaliste nga mhm. demal région bu la nekk ci Sénégal foofu dem moo lay teeru boo duggee ci biir région bi amul région bu set ci Sénégal loolu nekk loo xam ni dafa doy waar après soixante d'indépendance. boo xoolee liñ ci am ci but liñ ci am ci ndimbal mu jugee bitim réew ak liñ ñu abal ci xaalis c'est des centaines de milliers de milliards mais tey jii Dakar gis nga ni mu sant. ba demee Saint-Louis gis nga ni mu mel nee nañ biñ fi toogee léegi am nañ plan décennal bu sept cent cinquante def ko ci mbënd mi président taxaw ne mbënd jeex la Sénégal tey demal ci banlieue tey la xale yi di gën jël gaal bi tey la ñuy gën a ci ambassade yi di ko wut visa ngir génn réew mi bu njëkkoon sunu ay maam dañ leen daal jaay doole takk leen forcer leen def leen jàpp léegi ñun ñooy takk suñu bopp jëng suñu bopp dem ci réew yi nekk fa ci condition yu te loolu nag dara waralu lu dul yaakaar ju tax politiciens yi ñooy socialistes yi ak libéraux yi ñu joxoon réew mi soixante ba léegi ñoom ñoo yàq Sénégal am na nag force yu bees yu fi nekk muy ay force citoyenne ñu ngi def ay jéego yu waxtaan ak ñoom pour def lu ñuy wax le plan alternatif de gouvernance populaire askan wi moom mooy jël nguur bi teel boppam réew mi tabax ko ci anam yu sel mu am euh, ñetti ponk yoo xam ni mu la neexee ci kanam dinaa ci ñëw voilà ci ci ci bi ngay wax sax ci seen mouvement bi yaa ngi tudd euh, li nga xamante ni mooy taux de chomage bi maanaam ndaw yi nga xamante ni amuñ xëy seen yaakaar dafa tas euh, dinañ la laaj parce que am na benn rapport bu ñu mu jegee génne rapport bi ñu ngi wax ni Euh, Sénégal bokk na ci ñetti réew yi nga xamante ne euh, chômage ñoom la daal di gën a sonal maanaam ñàkkum xëy rawatina ñàkkum xëyum ndaw yi tey jii yow en tant que euh, koo xamante ni am nga ay ambition pour yow lan moo mën a tax ndaw yi daal di am xëy file ci Sénégal bañ génn réew mi lan moo ciy solution exactement ban solution ngay apporter parce que dañuy xam ne peut-être le le le régime wala régime yi fi jaar yëpp côté boobu dañ ci daal di lajj complètement mais yow ban solution ngay apporter par rapport à ça pour ndaw yi mën a am liggéey fii ci Sénégal rawatina nag ndaw yi nga xam ne euh, dañu jaar fa ñu war a jaar maanaam jàng nañu am nañ seeni lijaasa mais fi ñu toll nii ñu ngi toog amuñ lu ñu def lan mooy solution bi exactement. waaw solution bi soxna si boo mu ko laajee dama ciy kontaan ma ñëw ci sa njëlbeenu question bi la wax origine bi mu jóge il y a ce qu'on muy l'organisation internationale du travail muy saytu wallu xëy ak liggéey ci àdduna bi ak ci dëkk ci àdduna bi moom moo def xayma ne Sénégal ci àdduna bi bokk na ci ci ñetti dëkk yu mujj ci wutal ak sàkku ndaw liggéey xëy askanam loolu nekk lu graaw président Macky Sall na ni cent mille muy soog a jël nguur bi muy ñëwaat en deux mille dix ne dina créer cinq cent mille emplois man sama xel dalul ci diggéem boobu parce que boo dégg entreprise yi nga jox ay doxandu nga xam ni ñoom lu ñu recruter lu ñuy gañe dërëm bu ñu def dañuy fexe ba pour ko mu nekk fukk li ñuy gañe lañuy ñuy seet mais seen yoon nekkul ci Sénégal doomu Sénégal bu dem France bu amee xaalis fii lay tabax këram fii lay dafay entreprise doomu Sénégal bu nekk Amérique bu amee alal da koy yóbbu indi ko Sénégal français bu fi def bu pare mais France la ko yóbbu et américain bu def bu pare Amérique la ko chinois boo ko joxee sa autoroute su ci amee xaalis du ko bàyyi Dakar Chine la ko yóbbu mu mel ni kon mbir mi fu laak fay dale la ci ndaw ñi nag ñun dañ ci am un plan spécial ñun jeunesse au pouvoir dañu créer li ñuy wax des pôles d'emploi et des métiers mu nekk des PME tuddul bokk wute na ak petite moyenne entreprise pôle des emplois et des métiers dañuy tabax ci réew ay école ak ay centre de ak ay université def Sénégal mu nekk la première manufacture de ressources humaines en Afrique maanaam université ak école yooyu ak école de formation yi buñ ko tijjee ñu fexe ba doomu Sénégal bu juddu ñu dalal la école jàngal la former la ba boobu majeur nga am sa liggéey boo am buñ la formé boo wa booy wax liggéey day fekk ñun Sénégal ñu jël quatorze régions def ko sept régions créer ce appelle des pôles agro industriels région mu nekk ñu xool lan mooy sa potentiel ma jox la exemple fu mel ni Saint-Louis mhm. au nord du Sénégal d'accord mhm. dinañ fa créer benn usine bu ñu tuddee l'usine de riz du nord mhm. usine du nord URN dem Casamance tijji benn usine ñu tuddee ko URS l'usine de riz du sud xam nga benn usine ñaata lay jar mhm. benn usine de benn usine de riz waaw bu usine Thiès ngi jar quinze ñaata ci ci ci ci ci ci CFA mhm. quinze millions d'euros moom dix milliards de francs CFA matu ko sax te usine ceeb bu ne dina mën a produire vingt quatre mille de riz par heure wax ma journée vingt quatre mille de riz par heure loolu buñ ko defee ci mbay mi ndaw ñi dinañ ci liggéey. Mhm. buñ koy bu ñuy ñuy bàcc bi am na ñu koy liggéey bu ñuy def mise en place bi dina am ñu ciy liggéey pour transporter ceeb bi dina am ñu ciy buñ ko defee dañuy defaraat raay bi. dina am ñu ciy liggéey nga def ko Ndar def ko Casamance mu jural la ay milliers d'emplois ñu créer ce qu'on appelle des petites entreprises performantes dañuy fexe ba fu mel ni ngaay xam nga Sénégal cuir bi nga xam ni moom la ñu utiliser dina jur plus de quarante milliards par an dañuy jël ngaay def ko la capital du cuir parce que cuir bi ñuy jël yow xam nga tey jii yéen jigéen ñi surtout da ngeen bëgg ay saagu Prada ay saagu Adani ay saagu Louis Vuitton mais yooyu xëy na saag bi nga jaay nag bi nga rey sa juru mariage nag deru nag boobu lañ la jaay def ko saag. Mhm. ñu jël saag bi jaay la ko un million et quelque te xëy na nag bi ñu rey sa takk moom lañ defaree sag bi mhm. loolu moo tax nga joral sa alal sa bopp dafa am solo bu ñu jëlee ngaay def ko la capitale du cuir bépp der bu am ci Sénégal parce que Sénégal bu leen fàtte nous sommes l'un des pays qui consomme le plus de viande au monde ngénte yi mhm. takk yi tabaski gàmmu yi màggal yi korite yëpp dañuy rey jur mhm. te saa yooyu reyu jur der mën nga ko transformer yóbbu ko ci ay tannerie ñu def ko kuir di ko yóbbu Italie di ko yóbbu Allemagne li ñu doon yóbbu Italie di ko yóbbu Allemagne di ko yóbbu Chine ñun bu ñu jëlee nguur gi dootu fi dañuy yóbbu lépp ngaay def ko ay jël der di ko defee ay dal di ci def ay sac di ci liggéey ak jodaar di ko jël bi créer ay foire di ko yóbbu bitim réew en produit fini bu ñu ko def sax produit semi fini di lañ ko jaay ñoom ñu koy def ay sac di ñu ko indi la hmm. mais Sénégal lañ koy defee ay sac ñun ñu doon jaay un million ñun ñu leen koy jaay au même prix loolu mooy doxal réew c'est ce qu'on appelle la production de richesse dëkk jënd ak njaay moo ko yor Mm. bu fekkee doo produire da ngay rek bu yàggee dootoo amati matière sunu matière gerte gi ñuy jël di ko yóbbu dañ koy def gerte Sénégal def ko diw jël diw gi li ñu soxla ñu bàyyi ko ci réew mi li ci ëpp ñu jaay ko ci sous-région bi li ci Europe soxla Chine soxla ko ci ñu jël ko jaay ko loolu bu ñu ko defee juróomi at Sénégal dina fay ay borom dootul lebati dootul abati te xale yi nekk ci réew bi dinañ am liggéey bu doy mango bii di yàq Casamance dans la zone des ñaay région de Thiès ñu créer des usines de transformation jël fruit di ñor suñu réew lii ñor ci réew mi ñu transformer ko ci réew mi mu jur alal jox ñu bàyyi ko ci réew mi muy jariñ doomu Sénégal li ci ëpp bu ñu lekkee naan ba màndi ba doyal li ci des ñu jël ko jaay ko sa bitim réew ko exporté bu yàggee sunu balance commerciale bi nga xam ne bi ñu amee indépendance ba léegi dafa déficitaire loolu mooy tax day dem ba dafay excédentaire gis nga Côte d'Ivoire. Mhm. Alassane Ouattara. waaw dafa ne juróomi at yi di ñëw. kenn dootuñu dugalati suukar suukar bi ñuy lekk ñoo koy bayal suñu bopp bu ko defee ñoom léegi nga dégg ay marque suukar buy jógal Côte d'Ivoire di ñëw Sénégal loolu noonu la ñuy tabaxee réew soo gisee Chine am doole lu nit consommé ci àdduna bi bu dee fukk juróom-ñett yi Chine la jóge alal jooju moo tax Chine tey nekk la première puissance économique du monde waaye boo amee or jaay am pétrole jaay am zircon jaay ba léegi amatooloo jaay ngay jël suuf yi di ko jaay jël géej gi jaay waa ñun bu yàggee mais léegi fan la ñuy dëkk voilà ci loolu ñu gis ni malgré période Covid 19 bi ñu toll mu nekk crise boo xamante ni c'est c'est mondial euh, ba jamono bii sax dañuy wax ni sax dëkk tubaab yi ñoo ñu gën a sonn mais gis nañ ndaw yi ba léegi euh, ñi ngi jël gaal yi di dem Barça wala Barsaq gis nga ni temps yi dafa taqar naa sewaat euh, ñu baree bari sax ñu ngi leen siy jàpp lan moo ci sa xalaat exactement période crise bi ñu toll nga xam ni se mondial période Covid 19 ba léegi ndaw yi ñu ngi bàbbeeku réew di dem Europe Barça wala Barsaq bi immigration irrégulière bi ba tey jii sax dañ naan euh, dafa amaat doole. waaw xam nga xam nga dund dund li ko yor mooy yaakaar doomu aadama bu amul yaakaar dundam dafa yàqu booy sëy da ci yaakaar am ci doom booy bay da yaakaar góob mais boo demee ba yaakaar tax yow mala yéen a yem fu la la sa xel yóbbu fa nga jëm wala barsàq bi li ko waral mooy américain bi bu amee doomam da koy gëmloo ne ko Amérique moo gën ci àdduna yóbbu ko école wala mu jàngal ko basket ba mu ba mu góorgóorlu bu màggee mu nekk mu mu am mu réewam garantiral ko liggéey boo liggéeyul sax ñu wutal la indemnité du chômage loo xam ne da nga ciy jàppandi en attendant nga am liggéey loolu organisation moo la koy may mais bu dee milliard bu ñu am mu war a dem ci njàng bi ñu détourné ko milliard bu ñu am su ñu waree dem ci pàcc mi ñu détourné ko loolu dafay tax sunuy structure de base infrastructure de base muy école yi di lopito yi dafay nasax suñu demee nag ba kenn amatul koo jëfandikoo yaakaar day tas te yaakaar bu tasee dafay indi njaboot gu tas yow boo amee sa kër nga jël sa teen jaay ko jël sa tool jaay ko say doom màgg amuñu tool fekkuñu fi teen mais lu ñuy def dañuy toog nit foog mu sàkk pexe yonent yàlla Moussa bi nga xamee ni dem na ci àll bi moom ak ay nitam ba commencé sonn yàlla daf leen ne migrer vers la capitale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko bundu xataale dafa génn Makka gi mu juddoo dem Médine donc mouvement migratoire dafa yàgg ci kaw suuf li koy waral mooy yaakaar fu mu am wala alal fu mu nekk buñ ko tuxalee nit ñi dañuy topp alal si mu nekk ndax nit yàlla bind ko pour mu torox yàlla bind ko pour mu lool daf ko bind pour mu dund ci teraanga xelam dal bu bëggee fu mu fanaan am fu mu fanaan bu bëggee faju am fu mu faju bu bëggee fàmbu alal fàmbu ko mais bu demee ba yëpp lépp mënatu ko dafay gàddaay loolu moo waral lii mais bu ñu dekkalaatee yaakaar. Mhm. def fi ay école yu baax. Mhm. tàggat xale yi. Mhm. former leen wut ay structure d'accueil créer ay usines créer entreprise yu performante def ci alal xale bu liggéey lu mu bon bon ñu fay la cinq cent mil nga xëy fajar liggéey wàcc timis boo xëyee boo eggee sa kër pratiquement ñu jox la cinq cent mille di nga xalaat leneen. mënul naan da ngay agressé wala da ngay sàcc wala da ngay tux yàmba wala da ngay jaay sa bopp ñuy jaay seen bopp. Mhm. ku leen ñëwoon salaire cinq cent mille par weer mi ngi nii. ñu ëpp ci ñoom. duñ ko def mhm. ñii di agressé bu leen leeroon ni chaque fin du mois ñu fay leen cinq cent mille ba un million ñu yor ci seen bopp yor ci seen njaboot yor ci seen ay wéjur kon boo leen waxee kaa leen agressé dinañ tal leneen lu dul naan dañuy wër di rey nit ñi di di exposer seen bopp il faut ñu dekkalaat yaakaar ci biir Sénégal entreprise de base muy SONES SDE mm-hmm. non muy SEN'EAU mm-hmm. di Sonatel mm-hmm. di Sénélec di Sénélec di ICS nga xam ni bu ci nekk di aéroport ñu jël ko jox ay doxandéem ñu jël suñu ay doomi réew yóbbu leen fa ñu leen di liggéeylu di leen exploiter di jël askan bi di sàcc seen alal loolu dañ koy jël milliards yooyu doon dem bitim réew toog ci réew mi des ci doomi réew mi parce que bu ñu demee nag ba réew bi ñu juddoo màggee ñëw fi màggee fi mënatuñ fi am dara mënatuñ fi mënatuñ fi def dara mu sotti soo sàccul geruloo geruñu la wala fenulu wala jaayuloo sa bopp jaayuloo sa ngor doo mën a am dara ñi gore ñi dese ngor dañuy daal di tuxu génn réew mi dem seen yoon te loolu nag yàlla sàkku ñu pour ñu torox. Hmm. Saint-Exupéry dafa bind benn texte benn livre tuddee ko vol de nuit. Hmm. dafa ne waaw la terre appartient aux hommes suuf si nit ñëpp ko bokk su neexul si bu la neexee nga tuxu fa mu neexee loolu olof def ko lépp nee na tukki fi dëkk neexee puisque nag dëkk bi dañ ko yàq te xam nañ ñi ko yàq ñun ñii ñoo ko yàq ndax ñi fi nekk di caxat caxati àll bi ci ñun lañu bokk te ñoo leen fi teg bu ñu demee de ba nga xam ni nit ñuy bëgg sànq yàq suñu avenir yàq suñu avenir njaboot dem am bi ay alal lekk ko yàq ko ñu war ko fay ak suñu doom dañuy am fulla jóg taxaw jëlee leen fi. mais mais naka gisee tamit Mansour parce que sànq si biir wax sax yaa ngi tuddaale euh, entreprise yi di seen Sen'Eau mais seen Sen'Eau sax ci laa lay laaj exactement euh, naka nga gisee ni ñuy marale actuellement sénégalais nit yi amatuñ ndox depuis seen Sen'Eau ñëw pour am ndox c'est tout un problème Euh, te ci ñàkku ndox boobu sax dañu gis ni euh, facture Sen'Eau yi waxuma ko sax consommateur yi eh, ñoom ñoo ko wax dafa triplé wala sax am ñoo xam ne dafa mel ni seeni facture dañ ko multiplier par quatre wala par cinq naka nga gisee euh, gestion de l'eau au Sénégal avec Sen'Eau nga xamante ni sax dañ doon ŋàññ avec gestion bi ak sénégalaise des eaux am yaakaar ni Sen'Eau su ñëwee dina tane ñu gis ni actuellement consommateurs yi ñu ngi dund piir que ci période sénégalaise des eaux naka nga gisee euh, Sen'Eau ak tamit maral gi muy maral euh, sénégalais yi. xam nga euh, développement question de fulla ak fayda américain yi seen ndox duñ ko dénkaan français yi seen ndox duñ ko jox Sénégal chinois seen électricité duñ ko dénk Sénégal ñoo koy téye seen bopp parce loolu moo lay dundal xam nga ceeb bi ngay lekk yow ak yëre yi ngay sol xam nga doo ko dénk te dëkkandul yaa koy teel moom sa biir sa biir réew noonu la dem seen o tubaab yi dañuy ñëw pour investir dañu ne Afrique dërëm boo fi def dina la jural juróom-ñetti dërëm investissement boo investir di nga gagné une fois boo investir une fois di nga gagné huit fois donc Afrique loo fi def mu jural la njariñ puisque ñun bëgguñu dara ba ndox bi ñuy naan mënuñu ko jëlee suñu bopp lu ñu dal ñoo ko teg suñu bopp askan wi dañu war a am fulla bu ñu nee dañuy privatiser seen ndox mi ñu jug ne du fi amee parce que boo nee may président de la république damay tabax réew mi ndox mi nga joxe téléphone bi nga joxe tali nga joxe tabax benn aéroport wut benn tali bu fay dem jox ko ay kër ñu jël sa ay njaboot di leen fay salaire bon loolu ci ñàkk fayda la bokk te nag ñuy ku di njaaga bi moom mooy njaag ñoom ñooñu laaj suñu alal ne bu ngeen ñu joxee réew mi dinañ ko tabax ñu jox leen alal bi ñu détourné ko jël réew mi jaay ko boole ñoog ñoo xam ni musuñu ñu fonk noo xoolee naar lu mu jàppee nit ku mooy jàmm tubaab lu mu jàppee nit ku ñuul c'est un inférieur maanaam nit ku matul waa ñi la xeet mhm. naka ngay jëlee sa alal ak sa njaboot di leen ko dégg comme ñoom ñi yor réew mi amuñu fulla ak fayda téye alalu réew mi gérer ko li ñor ci réew mi des ci réew mi ñu jox ko doomi réew mi pour ñu mën ci tedd dañuy am fulla jóg jëlee leen man man ko sama sama sama sama sama sama xalaat. Mhm. du ma ko nëbb. Mhm. ils ont échoué. Macky Sall dafa tas yaakaaru Sénégal yi yaakaar ni. ay mbokkam jël leen dajale leen jox leen les postes de responsabilité ñu àccumoo xel alalu réew mi ba tey jii seen xel di dem ci ñu jël ay jaas di ko dóor nit yi moo leen di bàyyi ci réew mi loolu bu ko xalaatee mi ngi nax boppam. voilà benn mandat la ñu waxoon dina ko wàññi yóbbu jëlee ko sept ans yóbbu ko cinq ans. Mhm. bàyyi nañ ko. élection deux mille dix neuf yi mu forcé gàlgati élection yi. gagné ko sénégalais yi tane ko di ko seetaan léegi nag deux mille vingt quatre lay jeex na gore teraanga duñ ko jox def ko président nga xam ni fii ba yow mal xiyam way boobu du fay fu ñu waxatee histoire u Sénégal dinañ ne Macky moo nekkoon le quatrième président de la République du Sénégal mhm. teraanga jooju sénégalais jikko nañu ko delloo siggil ñu ci àdduna siggil ñu ci Afrique ba bañ fi nekk ñu def yëpp yu ñàkk fayda di laaj ay troisième mandat comme ay Ouattara comme ay euh, ki nekk Alpha Condé Guinée mhm. na fexe ba siggil Sénégal comme ni ko sénégalais siggilee fal ko deux mille dix mu forcé deux mille dix neuf ñu seetaan ko nit nag dafay gore olof nag mhm. dafa ne baadoola bu xamul suur na da ngay téye bu dee dafa def forcing bu ko ci bu askan wi duñ ko ci bàyyi su ko ci askan wi bàyyi ñun duñ ko ci bàyyi jeexal na na pare pour hmm. dem Sénégal du monarchie du royaume du dynastie falul boppam bay seet ku koy remplacer ñoo ko faloon ñun ñooy seet ki ñu neex ñu teg ko ci bopp réew mi te bu jëmee forcé ah dina métti ci moom bi mhm. xam naa ni moom bu forcé dina dina métti ñu ngi egg foofu waaw ñu ngi ñaan kilifa diine yi muy xalif généraux yi mhm. bi ñu nekk ci église bi nañ ko woo wax ak moom tenir ay discours public ne ko da jeexal demal sa yoon mhm. ci famille wala ci parti ku bëgg a nekk candidat mais Sénégal kenn ëppalewu fi kenn demal nga samp sa ndënd ku mën ku askan mi tànn ñu fal la bu mu toppatoo ku koy remplacer bu mu wut ku mu fi teg parce que tegu fi boppam dañ ko fi teg te ñi ko fi teg ñoo ko fi jële ci carte bu forcé ñu jëlee ko fi ci doole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 Euh, jeunesse au pouvoir gis nga fan yi li occupé sax actualité de la semaine lépp euh, di affaire au député Dembourou saw euh, Dembourou saw nag li tax mu occupé actualité bi du lenn lu dul déclaration bu mu amaloon jëm sax ci troisième mandat boobu nga xamante ni yaa ngi koy mentionné muy wax ni ñoom daañu défendre à tous les coups li nga xamante ni mooy candidature pour troisième mandat bu président Macky Sall bu fekkente ni accepté ko ñoom daañu génne wala sax mi ngi wax pëli euh, ethnie boobu nañu génne seeni jaasi euh, pour jàmbaarlu ak ñi nga xamante ni ñooy xeex euh, troisième mandat bu président Macky Sall yéen ñu gis ni mbir mi bi mu amee def ngeen ab sortie médiatique ànd ci ak sax waa nitu dëgg valeur pour ñaawlu li nga xamante ni mooy déclaration bu Dembourou saw ngeen di laaj sax na tekki ndombal tànkam yéen sax yéen ak naan nañ ko jëlee ci assemblée nationale bu Sénégal naka nga gisee euh, li nga xamante ni mooy affaire euh, Dembourou Sow. waaw yëpp Dembourou euh, ci dellu ndax damay yaakaar ni nit la koo xam ni li mu koy wax xëy na àndul ak sagom àndul ak xelam Sénégal famille boo jël bu dee ay jullit lañ amoon am na ci ay chrétien bu dee chrétien lañ am na ci ay jullit bu dee ay tukulóor lañ am na ñu séeg séeréer bu dee séeréer lañ am na ñu séeg wolof bu dee wolof lañ am na ñu séeg joola Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te Dembourou Sow dafa tuuti pour di tas Sénégal gaa seen jooju mu ne dina ko yëkkati bu bu ko yëkkati boppam la ci njëkk dina ko def ci boppam bis bu xeex bi naree il sera la première victime ci média lay wax bis bu jógee pour dugg ci loolu mu wax dina ci bëgg a génn mu tëkku dafa tuuti pour lëmbe Sénégal dafa tuuti pour tasaare Sénégal li ci nekk mooy Macky Sall moom moo maladroit ethnicisé gestion wu nguur bi ba ñu yaakaar ni léegi ñoom Sénégal ñoo ko moom Sénégal santul Sall santul Wade santul Diouf santul Sy santul Mbàkke Sénégal Sénégal yëpp ñoo ko moom Abdou Diouf moo ko fi jiitu bi nguuroom jeexee mu nar a forcé askan wi dañuy taxaw mu dem Ablaye Wade mi nga xam ni moo ko tàggat ci politique bi mu bi mu toogee ba nguur gi neex yaramam tàng mu ne léegi damay jël sama doom teg ko bi wan nañ ko ni moomoo ñu moomoo réew bi ñun ne seet ki ñu neex ñun askanu Sénégal teg ko sunu kan bu ñu doyulee ñu jëlee ko bi Macky nag bu forcé xam nga Abdoulaye Wade dem na ci jàmm Abdou Diouf dem na ci jàmm moom buy dem du jaar ci bunt bi du jaar ci palanteer bi bu mu xam fu muy jaar dinañ ko liggéey dégg na loolu mooy li ci am. Mhm. démburu nag dañ koy wax of nag euh, ak Bassirou Gueye nga xam ni moom mooy procureur de la République am na nit ñu fi wax. ñu gën a ñàkk solo li mu wax ñu convoqué leen dugal leen ci kaso bi démb Rousseau dafay woote violence te gis nañ guerre ethnique ak wala con confrérie li mu yàq ci Afrique gis nga Rwanda près de deux millions de morts ci xeexu Hutu Hutu ak Tutsi muy bondee compté ci biir xeex kii ne maa la mën kii ne maa la pouvoir dañuy militer pour lu ñuy wax le principe de non discrimination ku nekk murit da nga koy yemale sa bopp ak sa sëriñ ku nekk tijaan da koy yemale sa bopp ak sa ak sa sëriñ ku nekk catholique da nga koy yemale sa bopp ak ki nga gëm ku nekk jullit da koy yemale sa bopp ak ki nga gëm yemale ñëpp en matière de citoyenneté nous sommes égaux en devoir et en droit ñun sénégalais en tant que citoyen ñoo tolloo ci droit ak devoir soo bëggee passeport kenn du la defaral ñaari passeport soo bëggee pièce d'identité kenn du la defaral ñaari pièce benn nga am ma am benn sëñ bi am benn président bi am benn parce que ñun ñëpp ñoo ci yem. voilà Sénégal. Mm-hmm. kenn ëppalewu ci kenn. voilà ñu laaj la ci beneen ponk bu am solo man Mansour Mboup euh, di gestion Covid 19 bi même bu fekkente ni euh, actuellement ñu ngi wax tendance baissière euh, fii ci Sénégal gis nga ni en Europe ñu ngi wax. Euh, ay affaire deuxième vague de contamination ba euh, France mi ngi jëlaat yeneen mesure de restriction yow naka nga gisee ni ñu gérer Covid 19 bi euh, file ci Sénégal te tamit nan la état bi war a def ba deuxième vague boobu am ci réewu tugal yi bañu amaat fii lan mooy si sa gis-gis. waaw xam nga dama la waxoon sànq jàng baax na am xam-xam baax na. am koom-koom baax na waaye li gën ci doomu aadama mooy nga am fulla am fayda covid 19 bi su fee feeñoon Afrique avant muy feeñ Chine wala muy feeñ Europe wala Amérique kon benn africain bu dugg Chine mbaa muy dugg Europe mbaa muy dugg Amérique puisque nag seetaan nañ ba mbir yi dugg ñu tolloo ceeg ñëpp yàlla defal ñu sutura tubaab yi ak chinois yaakaaroon ni Afrique day perte nit ñi di dee comme ay weñ ñu ñëw jëlaat Afrique def fi lu leen neex yàlla moo leen ëpp doole jàngoro ji ci seen réew la ëppee mënuñu ci dara ñun yàlla musal nañu ci nit ñi duñu takk mas waaye sax yàlla mi ñuy defal sutura mais nag dañuy dañuy foofu nag dañuy féliciter état bi parce que politique du rek seen taxawaay ci ndër Covid bi am na solo ndax ten nañ ko gàttal bi jël ay mesures ñu def ay dépistage massif ñu mu jot ni jox leen garab yi disponible ba tax na ni mu waroon amee doole amee wu ko mais man de damay wootaat damay woote médecin yi ak chercheurs ñu bañ a ci Europe ak Amérique ak Chine wala Russie. pour xaar solution nañu xalaat lan moo tax jàngoro bi li muy metti metti ñun daluñu mu baax li mu metti metti dee gi bëriwul Sénégal ndax boo defee la moyenne nous n'avons pas plus de trois morts par jour donc loolu donte les épidémies bi ñun gëm nañ ko mais ni ñu ko surmédiatiser ba garaawal ko mel na feebar boo xam ni bu ñëwee day saagaagal ñëpp loolu daluñu nañu xool tàmbalaat ko xool wut ci ay saafara te mat kii nag buñ ko mënee wàññi jéem a soulager nit ñi bañ a xaar ne bàyyi na ma Amérique ne bàyyi na ma pour ñun Sénégal ñuy soog a bàyyi ma nañu wut ay pexe yu nit di mën a defee dépistage mais ñu bàyyi jënd masque yi man loolu gëm mag ñi ñu bàyyi leen ci tur te aar leen ñi gën a sensible ñu protéger leen ñu teg ci mais mu gën a di nekk obligation parce que ak takk ci réew mi toll boo xam ni bu feebar bi doon graawee graw dëgg comme ni ñu ko Sénégal day ci saabu mais su ñu yóbbu ko ci kenn ko man gëm naa ne mais graawaay bi soo graaw pour jaay ci seen ay garab profiter soppi doxalinu àdduna bi loolu mooy li may ŋàññi parce que dañu profiter ci jàngoro pour pouvoir bouleverser mooy soppi doxinu àdduna tëj nañ fi Màkka tëj nañ fi tëj nañ fi Rome jaamukaayu yàlla ñu tëj ko te du tere bu ñu bëggee def ñoom état seen ay manifestation wala seen ay ndaje gis nga mag def ci ay tournée agricole ay xew yu soxnaam dem ci biir jàngaram loolu yëpp boo ko xoolee ak li ñuy imposé dafay nuroog ay caaxaan jeunesse au pouvoir posture am mooy feebar bi am na garaaw na dafay reye mais nañ ci wut suñuy pexe bopp boole ci chercheurs yi boole ci médecin yi boole ci tradi praticien yi ndax balaa tubaab bi di faj suñuy maam ñoo njëkk a commencé di sàcc donc li ñu am muy suñu patrimoine buñ ko xeet bu médecine modernité tëdd médecine traditionnelle mën na indi saafara ci jàngoro ji ñu profité ci jël suñu médecine traditionnelle ñëpp maanaam moderniser ko jox ay jumtukaay génne ay milliards boole leen ñu boole seen xam-xam ne leen jàngoro yi lan ngeen ci mën lan ngeen ci xam bu ngeen ci amee saafara ngeen indigu ñu jox ko askan bi bañ a sàggane ngir moom di topp rek li nga xam ni bitim réew lañ koy jéggaani parce que tey jii Sénégal dina importer lu ëpp cent vingt milliards de médicaments te pourtant am nañu ay sàccat nañ boole tradipraticiens yi ak chercheurs yi ak pharmaciens yi ñu def benn kuréel ñu wutal leen ay centre de recherche li jeunesse ba pouvoir tuddee INSEN rek muy institut institut de recherche scientifique et technologique ñu xool mën a defar ay portable parce que am nañ ay doom ñu dem bitim réew jàng ko te mën nañ ko ñu xool garab bi ñuy consommé cent vingt milliards yii di dem ci ay ci ay industrie pharmaceutique yoo xam ni bitim réew mais ñu jël ko soxna milliards yooyu mais jox ko jël na ko ñuy defar garab yi ñuy fajoo tabax hôpitaux yi ñuy fajoo li nga doon jël dix millions di jël avion dem clinique France te du la teree dee ñu bàyyi ko ci réew mi jox ko médecin yi jox ko pharmacien yi jox ko chercheur yi olof dafa ni loo dàq këram mu jëm àll dàq ko mu ñëw ci biir kër gi ndax ëllëg sama bopp moom la gën a du bañ naa la. Mm. français yi su ñu amee alal wala marché duñ ko jox Sénégal français lañ ko jox. américain yi su ñu amee marché seen dëkk marché tali marché pont marché train duñ ko indi Afrique seen dëkk lañ koy bàyyi waaw pourquoi ñun de ñu war a sàggan ñàkk fayda lu ñu bëgg alal bi ñu yor jox ko bitim yi jox ko ñeneen ñu lekk ko ñu toog ñun ñuy xoole voilà daal jëndee bëri. maa nga jënd meew. Mhm. jàppal ni jël nga sa cinq cent wala sa six cent franc jox ko benn baykat bu nekk jox ko benn sàmm bu nekk foofu. Mhm. saa yu jëndee bu jógee Kambut jàppal ni jël nga sa trois cent mbaa sa cinq cent jox ko baykat bu nekk Kambut. Mhm. waaye léegi nag ñun ñu nekk ci réew mi xanaa ñun bëgguñu dara moo tax jeunesse au pouvoir di woote ce qu'on un développement. endogène financé et auto entreprise mooy koom-koom boo xam ni dañuy xool suñu alal ñu dajale ko bay ci sàmm ci tabax ci ay usine nit ñuy jóge bi ci ñoree ñu delloo ko ci askan bi maanaam mooy développement boo xam ni ñoo koy financé donc ñoo koy ñoo ci def suñu alal li ciy meññ ñoo ciy jëfandikoo li ci ëpp ñu exporté loolu moo tax. Mhm. am réew di dox loolu mooy tax am réew di jëm kanam loolu la tubaab bi di wax le patriotisme économique Donald Trump liñ koy ŋàññ yëpp lu mu am Amérique la ko jël nee na américain yi nekk bitim réew nekk ci yeneen réew di fa defar ay affaires di fa defar ay oto di fa defar ay machine di ko indi Amérique bu ngeen koy dugal ci réew dama koy surtaxé. Mhm. yéen ñëpp dellu ñibbi si li mhm. ñibbi boobu nag. ñun dafa jot ñu déclaré képp kuy borom xam-xam képp kuy borom alal di sénégalais nit bi si nga indi sa alal balaa nga koy def nag day fekk état bi organiser dëkk bi nit ñi am ay opportunité boo dugalee sa xaalis mu bañ a sànku ndax di nga am ay garantie diaspora bi ñu créé ce qu'on appelle la diaspora banque dama bind benn téere en 2017 la génn ma tuddee ko la jeunesse au pouvoir le développement du Sénégal par la jeunesse et pour la postérité. bi ma ko bindee ma dañuy créer une banque une diaspora banque xaalis yi ñu yónni dañ koy jaarale seen banque mu ñëw Sénégal su fi ñëwee donc dafay nekk lu am solo ñu am succursale France am succursale Allemagne am succursale Italie li daan jaar Western Union di jaar MoneyGram di jaar Ria mais di jaar seen banque bopp. banque boobu bu état bi ne damay defar tali diaspora bi ne ko ah tali bi lu muy jar état bi ne leen cent milliards diaspora bi ne leen mën nañ ci def soixante dix milliards bu tali bi pare diaspora bi sénégalais ay sénégalais lañ am ci soixante dix pour cent mbaa ñu am seen cinquante pour cent bu ñuy jaay SONES SDE bu ñu koy jaay wala ñu bëgg ko nationaliser diaspora bi taxaw ak seen banque mais ah ñun de seen eau bi mën nañ ci def cent milliards bu nee bu dee dafa autoroute à péage dañ ko bëgg a tabax bi taxaw ne leen mën nañ ci def cinquante milliards xaalis boobu autoroute yi di jub ak péage yi di indi usine yi di ko indi au lieu muy dem bitim réew sénégalais yi ñoom ñoo koy séddoo seen biir loolu mooy tax réew mi di am doole dañuy créer le congrès de la diaspora sénégalais bu nekk bitim réew day nekk day nekk ñu nekk Afrique ñu nekk Europe ñi nekk Asie ñi nekk Chine dajale ci kuréel boole seen alal di ko indi ci réew mi bu ñu naree jaay mbaa ñu nar a privatiser ñu jaay leen ñu tabaxal leen benn ville bu mag tuddee ko Diaspora City mu nekk une ville ultra bu bees boo xam ni suuf yi duñ leen ko jaay. Hmm. ndax suuf seen suufu maam la suuf yi ëppale fii leen juddoo dañ bitim réew mu nekk ville bu moderne am lu mu war a am am train am ay tali am ay stade am ay infrastructure am ay supermarché jikko ak xam-xam yu ñu am bu ñuy ñëw ñu indaale ko mën a contribuer ci li jëmale Sénégal ëllëg. voilà toute dernière question Mansour Mboup euh, juste une deux minutes temps bi jeex na euh, ñu laaj la rek euh, ci li nga xamante ni mooy affaire Téliko nekkaat loo xamante ni dafa secouer secouer la magistrature fii ci Sénégal ban xalaat nga ci am juste une deux minutes bala ñuy tàggatoo ak auditeurs yi. waaw affaire Téliko nag Téliko nañ ko bàyyi mu dem. ci njabootam euh, ñoom ci ñi ci nguur gi yàq nañ seen der ci ay scandale donc ñi nga xam ni ñoo fi des ci ay juge am intégrité mooy gore maintenir respecter seen serment waat bi ñu waat dara mënu leen tax ba ñu war ko ñooñu état bi na leen fi bàyyi bu ñuy def seen ay njuñ njaaj nañ ko def mais tax bëgg a taxal ku ne loolu dafa ñaaw une justice elle doit être indépendante moo tax ñun jeunesse au bu ñu jëlee nguur gi Sénégal du ñu weesu fukk ak juróomi ministère mooy quinze ministres Sénégal dootu ko weesu assemblée nationale dañ koy wàññi cent cent euh, cent soixante cinq députés la ñun dañ koy indi soixante dix députés régions yi quatorze régions la dañ ko indi def ko cette région justice bi dootul nekk ministère dafay nekk une entité indépendante dañuy créer ce qu'on appelle un département de la justice nga xam ni ñoom ñi nekk ci yoon ñoom ñoo koy structuré moom haute cour de justice am conseil am les cours des tribunaux ñoom ñu organisé am ses propres fonctionnement président bu waxee dara te defu ko ñu dal ci kaw bu déggee dara defu ko ñu dal ci ko bu sàccee ñu dal ci ko bu fenee ñu dal ci ko bu woree ñu àtte ko pour haute trahison loolu justice bu indépendante moo ko mën mais tant que pouvoir exécutif bi muy président moom moo yilif justice yilif assemblée dëkk bi du dox ndaxte au lieu mu jël dawal yoon moom bëgg-bëgg boppam moom lay dawal loolu moo tax séparation des pouvoirs baax ci lu ñuy wax le système d'équilibre des pouvoirs te loolu moom mooy dalal réew juge bu jëm président dal sa kaw président bu jëng juge bi dal sa kaw euh, juge bu jëng assemblée nationale mën a dal sa kaw directeur général bu sàcc xaalis corps de contrôle yi muy IGE wala nag mën na dal sa kaw du tàggu état ministre bu détournul xaalis corps de contrôle yi dal sa kaw amul tàggu état ñooñu at mu jot ñu siiwal bataaxal ci yorinu réew mi entreprise bu nekk ban mooy dox ban moo doxul kan moo jël xaalis ku jël xaalis ñu jaare la ci yoon ku rey nit ñu teg la ci yoon ku def la warul def ñu teg la ci yoon loolu soxna si moom mooy dalal réew hmm. nga jàpp ñun bu ñu jëlee réew mi incha allah on va créer ce qu'on appelle le département de la justice président hmm. du leen mënal dara te lu mu def ñu càmbar ko ku jaarul yoon ñu teg la ci yoon loolu benn la hmm. beneen bi mooy sur le plan scolaire njàng mi dafa sooxe te njàng temps bi xoj nañu temps bi xoj nañu moo yor réew waaw sunu sunu maam Thierno Souleymane Baal dafa doon wax ni ngànnaay bi ëpp doole mooy xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxilmu maalun ñu ne ko lu tax mu ne laa yus na mu ne xam-xam moom mooy alal ñu ne ko lan moo tax mu ne ndax du jeex Cheikh Sidi Hadji Malick ay téere la fi bàyyi Sëñ Tuubaa ay téere la fi bàyyi loolu mooy jàngale ndax ko teraanga ñu ngi ci xam-xam bu ñu boolee xam-xam ak doole muy jeunesse au pouvoir dil xam-xam intelligence boole kook doole mooy ñaari jumtukaay yi yàlla di dénk askan pour ñu mën a liggéey mën a mën a fas seen ay soxla mën ci jaamu yàlla ndax sa xel bu dalulee wala amoo alal wala nga ndóol boo mën a jaamu yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa doon wax naan la pauvreté est parente de la misère maanaam ndóol dafay jege ak kéeféer ndaxte ki ndóol xolam du neex ki xolam neexul dafay soxor te soxor du dugg àjjana kon mu mel ni bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi voilà joxante loxo mhm. di la remercier ci sa interview bi mhm. de la jeunesse au pouvoir di wax sénégalais yi nañu booloo nekk benn Macky Sall àdduna aussi dafay jeex nguur kenn du ko ñëdd fal nañ la ki bañ du la def président def nañ ko président satisfaire ñu ñu bàyyi ko mu forcé ñu seetaan ko ngir jàmmu réew mi ngal la ndëkk bu mu baadoo la di jéem wut beneen mandat na siggil Sénégal siggil Afrique siggil der bu ñuul buñ ci eggee mu jël nguur gi delloo ko askan wi ñu seet ki leen doy ki leen neex ñu def ko président Sénégal jëm kanam ñun ñëpp dañuy dem bàyyi fi réew mi mag ñi fi nekkoon nekkatuñ fi ñi doon wax sama suufu maam sa maam mi ngi ci biir suuf ku am suuf doo dugg ci biir suuf donc suuf si kenn moomu yàlla moo ñu ko fi wàccee moo ñu ko baaxee pour ñu fi dund di fi bay di fi tedd di ko fi jaamu wasalaam jërëjëf soxna si ñu ngi lay kontaan di la jaajëfal. jërëjëf yàlla dëgëral la. defal la xéwal. defal la yokk sa liggéey. amiin ngi koy remercier bu baax a baax man Mansour euh, man Mansour Mboup nekk euh, njiitu mouvement jeunesse au pouvoir ñu doon waxtaanee lépp lu soxal actualité bi rawatina ci wàllum social kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de dix heures à onze heures euh, ci seen émission toute la ville en parle di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekk ci cabine technique bi di leen wax ba samedi. samedi prochain allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi ngeen mën ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube euh, Rewmi officiel wala ci suñu portail internet mi www.rewmi.com jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah